président discours bi mu def c'est je pense que c'est le plus mauvais discours de l'histoire du président bu muy nekk 2012 ba léegi c'est le plus mauvais discours d'abord avec des conséquence yu graves pour le pays pour la stabilité pour la cohésion sociale ba pare pour l'avenir de ce pays il vient de porter un coup extrêmement grave à la démocratie sénégalaise ak li ci mënta wax ak failles yi mënta am Sénégal ba muy mës nekk Sénégal mësuñu def lu mel nii au peuple sénégalais c'est-à-dire que président de la République dafa jël paaka jam leen fa seen droit nekk ñu dem war a voter même si il y a eu des failles président li mu wax dafa violer constitution bi. parce que mënul jaar assemblée nationale pour def lu muy def nii. constitution dañu ne conseil constitutionnel moo am droit. wax ak président ci acte yu muy posé yu mel ni le PDS est dans son droit mais depuis le début c'est une pure mascarade un seul homme a été ciblé c'était Amadou Ba moo wax na ko il fallait le l'éliminer il fallait l'humilier et je demande solennellement devant les Sénégalais et s'il m'entend que le premier ministre Amadou Ba na démissionné jox waa APR ak ñaboodu benn bokk yaakaar seen lenge ñu dem mu dem nit ku la yéenewul jàpp ñu lay xeex ba njabootu président les plus proches ñu lay xeex na nga am sa fulla ak sa fayda nga woon sénégalais que parce que man ki ma xam am na fulla mosuñu ko dégg ci lu ñàkk fayda maanu na téy na boppam donc tey devant le peuple sénégalais ce qu'on veut faire à Amadou Ba c'est juste l'humilier deuxièmement on a posé la question du groupe parlementaire de la commission d'enquête parlementaire xanaa balaa crise institutionnelle di am ñu woo groupe parlementaire bi ñu constitué onze yi ñu teg ko nañu convoqué le conseil constitutionnel ba ñu tontu leen ne ñu bu boobaa ñu def seen rapport parlementaire jébbal ko président de la république ñu ne ko ne président de la république ñun convoqué nañu le conseil constitutionnel ñu bañ y une crise mais ba léegi tey ba heure bi ñuy la commission qui a été mise avant-hier même pas commencé ay liggéeyam ñu ne crise am na man looloo ma jaaxal di loolu moo tax ñu précipité loi bi actuellement parce que da ils se sont rendus ils se sont fourvoyés en mettant la commission parlementaire ils ont su avec le temps mënuñu arrêter processus bi la seule manière aujourd'hui d'arrêter la le processus moo doon duggal benn loi rapidement rapidement léegi léegi léegi léegi léegi pour dagg affaire yi jox président de la république benn raison deuxièmement président de la république Macky Sall mais bu amee pour déglu les recalés am pour déglu tey waa PDS am pour déglu Alioune Tine parce que Alioune il faut mu wax sénégalais yi ban rôle la joué ba lii am tey parce que depuis plus de deux mois il est en train de partir partout pour parler de deuxième dialogue conséquences yaa ngi ni c'est-à-dire que 23 juin ña doon xeex pour nekk il faut ñu respecter la constitution il faut qu'on respecte le calendrier électoral bokk ñu ci indi conséquences yi mais bu ñu demee ba heure bi ñu war a teg un jalon extrêmement grave mais candidats yi ñu choisir ñuy vingt président nu muy recevoir yi ñeneen recevoir le conseil constitutionnel recevoir le les sept sages recevoir ñeneen ak ñeneen y compris des leaders politiques yoo xam ne xam nañ ne recevoir na leen démb ci guddi bu ñu toogee génn ci wax ci ci askan bi di waxantu mel ni ñoom ils sont pas d' accord alors ils ont reçu hier soir au ba ñu d' ci mais nañu recevoir ñi nga xam ne ñooy candidats yi les 19 mu recevoir au palais avant que mu jël décision bi parce que ñooñu ils sont aussi légitimes que tey ñi nga xam ne tey dañu am problème. est ce qu' monsieur Ba je vous ai écouté. je vous comprends. non je vous écoute leur légitimité leur est conférée par le conseil constitutionnel qui a validé c'est pas une légitimité. non déedéet yow da nga am sa droit. Euh, bi nga bi nga bi nga bi nga bi nga posé. par rapport à ton candidat Karim Wade injustice am na fa nag nangu nañ ko Sénégalais gis nañ ko mais injustice ñu ngi koy teg sur la tête des dix neuf ou des vingt autres candidats di que ne moom def na parjure ñu ne ko coppet yóbbu ko droit dal na ci kawam mais tey ñettele autant ngay nee ne ñii dañoo am injustice autant yaa ngi teg injustice Déthié Fall autant yaa ngi teg injustice. Euh, Anta Babacar Ngom autant yaa ngi def injustice Fafoural Daouda Ndiaye pour régler une injustice tu crées dix neuf autres vingt autres injustices dix neuf autres injustices looloo grave ci situation bi ban dialogue la fi président mën a def le président de la République à partir du 2 il n'est plus légitime il ne peut plus signer aucun acte légalement légalement ban man bëgg naa xam ban fenêtre la Macky di toogee fii le de bay wax war a mën a toog bay waxtaan waxu dialogue fii jaloo xëyu fii parce que fii ba le vingt cinq bu nekkee élection amul le président Macky Sall n'est pas légitime loolu mooy gravité situation bi parce que président Macky li mu wax tey ban gisuma benn argument bu taxaw il y a pas de crise institutionnelle la crise ni ko Bine moo waxee c'est au sein de l'APR am na ñoo xam ne mënuñu woon dund la candidature de Amadou Ba ils ont fomenté un complot contre le peuple sénégalais contre les institutions de l'État contre tout le monde juste pour éliminer un candidat c'est ça la réalité war a mën a jul loolu yëpp def ko ba yow ba nga xamee ne yow kii ngay tànn neexu la bul ko tànn le président man ba ma xamee ne neexu ko mooy le jour où il devait prononcer même kan la tànn mu jox ko Moustapha mais booy tànn ñemeel ki nga tànn nga tiim ak sénégalais yoo leen ni kii laa tànn et tous les actes qu'il a posés depuis lors étaient contre le, le son propre candidat mais fii la ñu woote ne dañuy investir bii ma ne ah yaa gën a xam ne mu lay wax fii la ñu woote pour investir benn bokk yaakaar le candidat Amadou Ba ba ñu génnee ay tissu bàyyi ko fi ba ñu ñu jógee à l'étranger ba ñu war ko ba ñu war a def ñu annulé ko la dernière minute kon c'est des actes contre Amadou Ba ce sont pas des actes contre li nga xam ne tey parce que Macky Sall lu gën a garaaw fii xew na fi mu dëgg ci tànkam mu jël tey sous prétexte que am na ñoo xam ne dañ leen kii gis nañ leen fii ba ñu jaaree fii d'accord le PDS on peut leur rien lui reprocher am nañu seen parti def nañu mais la procédure elle-même elle et elle est anticonstitutionnelle parce que le la loi que l'on va prendre aujourd'hui était une loi contre la constitution du Sénégal contre le peuple sénégalais Macky Sall mënul def leneen lu dul jaar conseil constitutionnel il peut pas passer par l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale n'a pas les prérogatives de reporter les élections présidentielles il ne peut pas lui arrêter le processus sous prétexte qu'il doit avoir l'avis du assemblée de l'Assemblée nationale avis bu koy am da koy am ci conseil constitutionnel wala leneen mais c'est une loi qu'on vote te ki la kilifa ki jiitu assemblée nationale wax na ca kaw fenn il faut ma dellu ba Sénégal parce que il faut ñu régler kaaw waa ji waa ji mooy kan mooy Amadou Ba c'est-à-dire que c'est un complot qui a été complètement ourdi préparé contre une seule personne boo xam ne ñi ñi xam nañ am na compétence am maanu de am na lu mu mën jaar-jaar na noo ko jàpp ci yenn scandale yi ñu tël tël tey ñu ne am na velléité de corruption velléité de corruption moo tax ñu war a mën a arrêter suñu processus électoral velléité de corruption mais nañu dem ba ci buub bi ñu xam ne corruption am na commission bi génne preuve yi bu boobaa ñu sanctionné ñu reprendre affaire yi. mais on l'a arrêté et c'est extrêmement grave et j'invite le peuple sénégalais vraiment à faire front contre ça. à freiner. à freiner le, le président parce que ñu ko dugal ci lii dugal nañ ko ci erreur bu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw mais Macky Sall. image bi mu amoon à l'international avec ce discours la il l'a complètement détruit parce que la ñu yaakaaroon ak la ñu xalaatoon ci kenn koo xam ne dem na ba taxaw ba ñu war ko séntu ci secrétaire général des Nations Unies man ne woon naa Macky ba mu posé acte ne dootul nekk di candidat fu mu dem maa koy campagnal mu nekk secrétaire général des Nations Unies mais tey daf ñu delloo ginnaaw dafa delloo la démocratie sénégalaise ginnaaw il a complètement violé la constitution parce qu'il a juré de protéger la de projet la de protéger la constitution mais yow yaa tànn sa sept sages kenn tànn lu la ko yaa ko tànn teg leen nga nekk la garant des institutions man ba ba ba secrétariat exécutif national de de pr génne wax ne il faut que les députés war a mën a soutenir l'initiative du PDS laa njëkk a publier Sénégal yëpp gis ci boobu ma ne ne am na loo xam ne ñu ngi koy préparer contre le peuple sénégalais, contre les institutions du Sénégal. Et ça, ce n'est pas bon. Merci beaucoup.